soutien bu mu bëgg a def ASC yi dans le cadre des phases euh, nationales bi nga xam ne suba lay commencé fii si Koungheul moo tax ñu woowoon les concernés des ASC bu ñu jox leen seen appui léegi sant plus tarder dañuy jox kàddu bi colis mu joxe la répartition de l'enveloppe ak wax aussi enveloppe bi ñaata la. merci beaucoup préfet si turu la présidente Socé Diop ñoo ngi nuyu mbooloo mi fi mi fi teew yëpp. di jiital nuyoo bi ci kilifa gi le préfet du département doon suñu kilifa ñëpp di nuyu le président de de l'ODCAV di nuyu les présidents d'ASC di nuyu ñu fi teew ñëpp comme ni ko préfet waxee madame la présidente moo ñu yónni tey ma ànd ak euh, son chef de cabinet monsieur Abdoulaye Thioban moom moo moom moo toog nii donc la fois passée am na benn euh, CDD bu ñu teniroon fii Euh, ñu préfet sàkku woon également tamit ODCAV sàkku woon ne ginnaaw ren Koungheul mooy organiser région de Kaffrine mooy organiser les phases nationale te Koungheul dafa war a accueillir ay match war a dalal ay gan ñu tàlloon loxo conseil départemental ak toutes les autorités pour euh, ñu jàppale jeunesse bi euh, ñu def de telle sorte que phase nationale yi mu déroulé wu dans de très bonnes conditions yaakaar naa keroog bi ñu réunion woon fii man bi ma joxee kàddu man ak euh, CC waxoon ne na en tout cas ñun duñ jël ndaare te président li mu defoon daaw su ko yokkul du ko ci du ko wàññ comme ni ñu ko waxee woon keroog président daf ne ñu xamal leen surtout la jeunesse ne leen ñun tey fii suñ fi toogee tey euh, yéen am ngeen si part des responsabilités comme ngeen ko waxee woon keroog ñu fal bi ñuy campagne yéen a jiitu woon yéen doon xeex yéen doon xàll yoon bi kon vraiment jeunesse bi su su su su su ayee kon ñun tamit vraiment dañ si war a def suñ kémti lay kattan raison pour laquelle daaw bi nga xamante ne nii euh, amoon na ñaari ASC e yu doon dem phase nationale moom elle avait déboursé un million de francs mm-hmm. ASC e bu ci nekk mu jox la cinq cent mille cette année également mu ne ginnaaw Koungheul mu mooy recevoir te vraiment ñu ñëpp ndaw ndam leen bëgg mu ne li mu defoon ndaw da koy da koy doubler mu ne au lieu d'un million mu ne cette année ci moom day joxe deux millions moom lay joxe te mu ne également tamit ñu ñu leeral ne deux millions yi li mu joxe nii xaalis la boo xam ne voté wuñ koon si budget bi mais ginnaaw ñu ñoo xewle te dañoo bëgg yëf yi dox moom lu mën a def lu ne rek dina ko def pour mbir mi dox en tout cas moom du yàq si ci côté moo tax mu débloqué deux millions mu ne 2 millions yi répartition bi. proposition bi ñun moom lañ def. dañu ginaaw dafa am quatre ASC. 2 ASC ak 2 ASC cadette. ak euh, ODCAV xam ne moom mooy organiser. ak service d'hygiène bi nga xam ne également ñoom tamit euh, vraiment keroog ñoom tamit defoon nañu sollicité woon nañu. par rapport ak désinfection mooy lieu yi war a euh, accueillir gan yi. mu ne kon day cinq cent 500000. ay ñaar ñaar ñaar ASC senior yi kenn ku ci nekk dana la jox 500000 muy 1 million mu ne 2 ASC cadets yi kenn ku ci nekk dana la jox 250000 muy 500000 ODCAV dana ko jàppale 250000 également tamit service du jeune également dina ko jàppale 250000 loolu noonu bon ñun clé de répartition boobu ñun moom leen ñu proposer à notre niveau waaw léegi nag par rapport ak toujours service du dafa am rek benn benn benn benn luñ benn benn éclaircissement bu ñu bëggoon a apporter euh, xam nga pour pour service d'hygiène on avait voté pour pour service d'hygiène dañoo voté woon 500000. pour jox leen ko. Mm-hmm. joxoon ne leen ko. Mm, te ñun bu ñuy bu ñuy génnee di joxe. Mm-hmm. dañu joxe rek dans bon dans le cadre général. maanaa ñoom seen ñoom seen activité. noonu lay demee mais cette fois ci également ginnaaw lii daf ni këtti ne jonn te vraiment booy dalal ay gan tamit. Mm. da nga leen di dalal ci place bu bu bu bu sell. moo tax mu ne kon bien vrai que voté wuñ ko woon mais dina génne waa 250 000 jox leen. muy fàttali également que ne démb par rapport ak final Koungheul Bambouck bi également elle avait elle a déboursé 500 000 pour jox leen ko pour jox leen ko démb. loolu la waxoon ne su ñëwee. ñu jottali ko. si ko ci si ko ci si turam. kon loolu daal kàddu yooyu si gàttal loolu la waxoon su ñëwee ñu ko ci ñu wax ko. dinaa je suis avec son donc son chef de cabinet su ñu amee leneen mu si complété. ko ci mu complété ko waaw dem ba léegi ASC yaa ngi wàcc si Koungheul ànd naag samay collaborateur ñu wër ASC yi mais fu ñu dem dañaan vraiment ñu ngi sant yàlla ndax bi ñu ñëw Koungheul ba léegi nous sommes dans de bonnes kon gan gu ñëw bees wax la loolu loolu dal na xel te autorités yi kon bu ñu commencé réagir nii wax dëgg yàlla dafa gën a dal suñu xel en tout cas ñu ngi remercier la présidente du conseil départemental au nom de tous les ODCAV remercier aussi le maire de Ribo le coordonnateur du mouvement MDK Babou Khady Dieng tey troisième autorité personnalité bi réagir ci phase nationale yi moo nekk madame Soos Diop Dione la présidente du conseil départemental de Koungheul ñi ci accompagnement ASC yi ñu def vraiment rafetlu nañ ko kenn ki nag du ma ko lim parce que kook tey bu phase yi yegsee fii tey ci ci ci ASC yi ak ci ODCAV moom la mu le ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique le ministre Abdoulaye Seydou Sow moom moom mu ubbi xàll yoon wi mu ubbi bi ma bëgg nag autorité yi nga xam ne ñoom ñoo des wax dëgg yàlla ñu jàppale équipe bi yi nga xam ne ñooy compétir dëgg ci département de Koungheul muy l'honorable député Mohamed Dieng comité euh, équipe am ci commune la nekk mu waa daan commune bun mu jàppale leen jàppale ODCAV mais jàppale ASC yi nga xam ne aussi ñoo ne ci phase nationale yëpp nekk département de Koungheul parce que du député maire Fass Cekke mais député maire député la bu département bi yëpp loolu si dafa jar ñu bàyyi ko xel pour ay collaborateurs am ko noonu di au maire yëpp le maire Aline yaakaar naa ne xëy na dafa yegseegul mais xam-xam ko ci ko xam ko ci taxawaayam mais incha allah xam naa ne dana accompagner jeunesse bi dana accompagner ASC yi en merci encore une fois monsieur le président Kouly Diouf Ndao le chef de cabinet Abdoulaye Thioban en tout cas dites à la présidente que nous sommes très contents en tout cas nous lui sommes très reconnaissants ci geste bi mu def parce que lii yëg la considération la te fi ñu ko joxee aussi dañ ci kontaan ndax fii lañ tëggee woon CRD bi mu waaj ñu encore ñun ñëpp suñu ñu teranga ji la presse ni ma ko waxee suñ fi génnee dans les ñoom sax loolu kenn du leen ko wax dans les plus brefs délais ñu ñu ñu gaaw siiwal ko parce que man dama bëgg teraanga mu néew mu bëri bu ko bu ko ni defalee nga wax ko fi nga war a waxee. en tout cas merci encore une fois ci jàmp na lool ndax léegi la ñu ko wax ñu dajale équipe yi quatre équipes yi les deux zones yi zones yi nga xam ñoo seq équipe yi ak ODCAV ak inspecteur départemental sport ñi ñëw ñëpp teew ñu dox ne vraiment kontaan bu baax. ci liñ fi gis say taxawaayu président de conseil d'administration ak tous ses collaborateurs en tout cas wax leen ko ne ko ODCAV kontaan na ci li mu gunge ASC yi ndax daaw dem leen phase nationale mu jox leen lii ren ñu demaat encore mu jox leen lii te ASC bi mu ko joxoon daaw ren dafa demaat muy ASC xëy gi macha kon loolu aussi euh, daaw jéeg kon loolu aussi vraiment kontaan nañ ci bu baax a baax ñu ngi gërëm monsieur le préfet en tout cas euh, liñ gisugum dal na xel ñu ñaan rek autorités yi nga gën leen ñaax parce que phase nationale c'est pas une mince affaire c'est affaire ASC ci bokk métti na dépense yi métti na te samedi aussi le premier ministre sera à Kaffrine te autorité bi dañ ci dem ñu bëgg ñëpp dem war wax dëgg yàlla fekkee ji cérémonie lancement bi au niveau de Kaffrine ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jërëjëf def aussi ñëpp ñu dem ci cérémonie d'ouverture bi le samedi avec le PM à partir de 16h au niveau de Kaffrine voilà donc affaire yi nag moom defe naa match yi suba lay commencé fii voilà donc demee lay commencé fii ñu ngi ñaan affaire yi yàlla def ko mu nekk ci si jàmm en tout cas matin rek wax nañ ci euh, wax nañ ci en euh, réunion de sécurité ñaax les forces de défense et de sécurité pour ñu jël seen matuwaay yépp ba bu kenn du am ay problème fii lu ñu sañoon daal lépp nekk si jàmm la salaam loolu la ñuy ñaan jërë ngeen jëf merci beaucoup